lan nga jàpp ni ñenn ci célébrité yi wala jigéen ñi nga xamee ni ñoom ñoo siiw ñu xam leen souvent ñuy nekk ay victimes quand bu fekkee divorce nañ polémique di juddu lan nga jàpp ni moo ko waral. c'est très normal ñoo bindoo ña ñoo ñoo bindoo ñi tam ñu tëggee ñaari boor. Hmm. c'est ça siiw du jaami borom ah. Youssou Ndour way na ko te effectivement siiw du jaami borom Thione Seck moo ko way aussi c'est pas comme Youssou Ndour. Hmm. mais siiw du jaami borom. Hmm. te boo siiwee sa dara mënatul nëbbu am na luy nëbbu nag mais am na loo xam ne faaw muy feeñ. rawatina sëy tey amul kenn ku fi sëy kenn ku fi ku fi siiw nga sëy te siiwul ñi siiwul sax dañuy sëy muy siiw hmm. rawatina yow mi nga xamante ni yaa ni faa nga sa bopp ci télé bi àdduna bépp di la gis faaw mu siiw mënul ñàkk ñu jàpp ni yéen divorce wala ñeneen ci célébrité yi entre guillemets da ngeen ko def vraiment mu nekk tendance dérangé wu leen ñeneen ñi sax di laaj naan ndax dangeen am loxo bu gudd fële ci arach ak yu demee noonu ndax quand même leen ci responsabilité. non xam nga say tas say tas say tas kenn bugg ko congaan ku sañoon say sa sa sa sa doom yi hmm. suñu borom di may ci àdduna benn sant la ñuy am mais boo demee tey ba sa doom war a sant Diop kii sant Ndiaye kii sant neneen da ngay xam ni suñu borom loolu dogal ceew da nga koy nangu. Hmm. day nangu ndogal. yàlla bu la nattoo dara danga koy accepter parce que amuñu sens su jëkkër am wërsëgu jëkkër ak ak am sens jëkkër du benn hmm. sens su jëkkër suñu borom mayuñu ko yàlla rek nag moo xam li ci kanam dañuy ñaan yàlla suñu borom subhanahu mayuñu taala ko parce que loolu lañ bëgg ah ñàkk sëy bi amul sens ku la ne tey jii sëy naa tas naa bëgg naa tas boobu. Hmm. waxu la dëgg tey ku sañoon boo sëyee doo tas ku sañoon boo sëyee da nga ciy toog sëy boo xoolee boo pesee ci entre jigéen ak góor. Hmm. seen sëy bu nekkee sëy bu duuree bu duree quatre ans sentiment bi nga xamante ni moom la ko jigéen ki di am sentiment mooy gën a yokk ko santiment ko góor gi parce que jigéen. Hmm. dafa dafa dafa mën a attaché wu ci ki ko yàlla booleel. kon kooku tas bu amee. Hmm. <laughs> da ngay xam ne du du bëgg du bëgg bëgg moo tax mu tas mais suñu borom mooy dogal tas ba rek. te ku tas neexu la. ku sañoon doo tas. ñu bari di wax ni aussi vraiment yéen yéen a bëggul sëy yéen a parewul pour sëy ndax lépp loo xam ne aussi yàlla war na ko may nit. ba mu toog ci sëyam sëy te yàlla tax yàlla da leen koy jox terewul quand même bu ngeen duggee ñaari weer ñetti ngeen génnaat loolu aussi yàlla leeral nga ci indi. xam nga ndeysaan jàpp ni. Hmm. Euh, a baax ba tax na boo nekkee célébrité genre benn xale bu góor ñëw versé la ay millions rek. Hmm. million boobu mooy continuer. Hmm. parfois demeewul noonu de sëy pantre la bu tëju tànk tijji woo ko mënoo xam li ci biir. absolument. jigéen mm. léeg-léeg mu ne ci sëyam nekk ci nekkin boo xamante ni ku mu ko nettali ci àdduna doo ko gëm mm. lam ciy dund mënoo koo xam nëpp bu bu kenn xalaat ni genre nitu artistes yi ñi ñuy sëyal dañoo am dañoo am dañoo am parfois du dëgg ah nañ bàyyi xelu nit yi ñuy fowee loolu ça n'existe paax léeg-léeg nga gis artiste boo xamante ne ni par contre jëkkëram bu xëy day débrouiller dépense comme tout le monde nekkul dañ koy paqueteel ay paquet ay paquet xaalis bu bàyyi tegal ko ko nekk loo soxla def ko mm. c'est loolu amul léeg-léeg am na ñoo xamante ne nii dañuy dem débrouiller ñoom seen bopp pour mm. ñëw indi ci kër gi ñu lekk ñu naan mais sac ak sutura moo fi nekk ba kenn mënta wili pande sa bopp di wax lépp mais du lépp lu ñu gis rek loolu mooy li am net bi netul nañu bàyyi xelu doomu aadama yi ñuy fowee loolu existé wul mm-hmm. du question que artiste bi xaalis rek moo ko téye fa mu nekk non non non xanaa duñu nit dañu am ay xol dañuy bëgg mm. du du du ku jóge fee rek yor lu dul jeex rek nga ne ay ci naa dugg ci moom danga dugg ci moom parce que da nga am ay sentiment ci moom sentiment yooyu nga am moo lay poussé à ce que nga nekk ak moom su dee ba boobu nga senti ni sentiment bi kat être mi ngi may gaañ hmm. wala sekk nañu loo xamante ne nii vraiment euh, mën naa ci am euh, gaañ-gaañu xol boo xam du dañ ba keroog may sàng suuf le hmm. alors da ngay arrêté say boobu ñaan yàlla yàlla indi la leneen lu gën ci yow d'accord ñi jàpp ni intention bi ngeen ciy duggee mooy defante ak it vraiment wane ni wax dëgg yàlla sol nga robe de mariée yu demee noonu ñu ci bari aussi ñu jàpp jàpp ni loolu moo leen ciy faral di dugal ndax it loolu du si bokk. koy defanteel. moo ma jaaxal de parce que ñëpp nee na daal intention boobu moo leen ciy dugal. man de defante laa xamul signification ak defante rek. nit ki léeg leen nga dégg nit ki ne dama samay noon man je me suis dit que ni noonu ça même si ça existe. nit hmm. mooy moo moo koy mooy may noonu boobu euh, benn atout. nit l'homme parfait n'existe pas mm-hmm. et alors yow bul jàpp ne je suis parfait ba tax àdduna bépp sopp nañ ma wala àdduna bépp bëgg nañ ma mm-hmm. mën nga am ku la bañ mais kala bañ jàppal ni mën na nekk noon mais bu ko valoriser ba tax nga ni damay defante kan laay defanteel man de awma ko may defanteel ci àdduna franchement parlant mm-hmm. man de ma personnel personnelle awma ko may defanteel ci àdduna taluma sax defante damay jàpp ni sëy suñu borom moo koy bind ci doomu aadama bi. Mm-hmm. yàlla miy bind ni sëy bii kat dina nekk di nga ko sëy da nga koy sëy. bu dee àpp ba dafa jot pour asaka ngeen taqalikoo da ngeen di taqalikoo mais bu mm-hmm. yàlla ne sëy bi dee continuer diw mi moo la yor durant toute ta mm-hmm. ba keroog yàlla di def dee am mu dem. nga resté wala nga dem mu resté mbiru suñu borom la parce que tàqalikoo ala kulli àll day day day am parce que tàqalikoo mënul ñàkk ci àdduna mm. il faut que kenn ki dem bàyyi fi moroomam ki fi des bu ko suñu borom bi nam nammee jox leneen da ko koy jox c'est amul leneen. ñeneen ñi di laaj ni wax dëgg yàlla valorisation bi nga xam ni moom la ñu war a am ci sëy ñu bari ci célébrité yi moom la amul amul d'autant plus que ñu ci bari daanaka sëy ñett ñeenti yoon tas juróomi yoon gis nañ ko ak Nabou Dash bi nga xamee ni xam nga ni ñu koy tooñ sax naan mu dugaat na ci sëy te sant <laughs> jëkkër ji xam nga ko sama jigéen ma tooñ ko loolu aussi du ñàkk am na jàngat boo ci mën a def. Nabou dama ko fan. Mm. xam nga lu tax. Mm. parce que au moins nit ku dëggu la parce que mi ngi wax moom li nekk ci moom Nabou fii Sénégal ñu bari dañuy dem defaraat seen yaram ñëw ni dama def lii wala dama def mais moom laa gis ci koo xam ne mm-hmm. la muy dund rek lay wax moom la concerné ah, parce que nit ku nekk ak li ko jig mm-hmm. xay na moom wax li nekk ci moom jig na ko macha allah mm-hmm. ma koy félicité de passage parce que bii yàlla dafa dogal ne ndeysaan réseaux sociaux yi ñu bari dañ doon def dañuy wane sama photo fii wane photo fee ba nga xam ne ndeysaan sama yenn nit yi di ma woo naan ma euh, dañ doon collé sa photo à part fole photo nabudage à part parce que jamono boobu ñii ngi wax lii moom mi ngi dugg ci sëy e ma ne leen nabudage jigéen la doon jàmbaar lool macha allah. Mm. Nabou ba mu toogee expliqué fi mu jaar ak koko moom doon sayal ñu bari gëmuñu woon loolu ndax bu dee abandon am na ci diggante ma koko pendant 4 mois te pourtant ñu bari xamuñu woon loolu ci moom. Mm. te bi mu génnee bi mu sëyee ba am 2 jours 3 jours toog na def benn révélation xamal carrément que bu ko yàlla nattu woon tey ji ak jëkkër joo xam ne amul sax moom bañul tekki ay jaaru oram jaay ko. pour mën a jox jëkkëram mu lekk mu naan. Mm. mais li muy bañ moom la ñëpp di bañ mooy manque de personnalité. sama jànq nga doxaan mm. sama xarit nga doxaan sama rakk bi ma bokkal benn nday sax bañoo ko doxaan doolu manque de personnalité la ak it manqué nit ki nga xam ne moom la la yàlla boole te góor ñi dañoo mën loolu am na góor ñoo xam ne bu ñu lay doxaan mm-hmm. yow seen bët mi ngi ci sax mi ngi ci seet si sa beneen xarit am góor ñoo xam ne même ci seen biir sëy dañuy sëy ak yow sa xarit ñëw ñu fexe di doxaan sa xarit ci ah, suuf te doo ko yëg jigéen ñi nga xam ne tamit léeg-léeg ñu teg bët seen seen seen seen jëkkëru xarit yi ah, ça existe ah. mais boo xoolee loolu ci góor ñi la ëppee et alors kon <laughs> bu suñ borom bi dogalee mi nga xam dana tëwu ko mm-hmm. te yàlla mayaat ko borom kër dañ ko ciy félicité rek di ko ñaanal yàlla le fait nag mu nëbbu tur bi mm-hmm. nëbbu sant bi <clears throat> Nabou Dash dafa xam système sénégalais yi Nabou Dash ba muy dugg ci jëkkëram mm-hmm. jooju moo gënoon a xam ne mbergaan la sant santul Mbàkke parce que lendemain mariage am génne dama mm-hmm. bari bari di laaj Sénégal dafa nekk société bu sensible boo xam ne jigéen bu fi tasaan sax da ngay nëbbatu xëy na da ngay am problème pour génn yu demee noonu wala di tas lu yàgg kenn du ko yëg célébrité yi léegi daal daanaka tas juróomi yoon sax dérangé leen te buñ génnee tamit mel ni du ñoom loolu aussi lan nga jàpp ni quand moo waral loolu ci entre guillemets ñenn ci célébrité tas ku leen ni bëgg naa ko waxul dëgg ku sañoon boo tasee du siiw hmm. non attends dañu waxante dëgg yàlla moo fi ne mais mënuñu laa takk àdduna bi yëpp yëg ne takk nañ la nga divorcé <laughs> ah ni ñu duñ xam ne divorcé nga sañ c'est impossible hmm. parce que tey bañ lay takk moom àdduna bi yëpp yëg nañ takk ndax takk dañ ne nañ ko siiwal hmm. loolu la ñuy siiwalee fase parce que fase boo ko siiwalul. Mm. yaa ngi bàkkaarloo doomu aadama yi. Mm. parce que tey boo ko fase di nga di di di nga am relation. Mm. et alors relation ba ngay am nit gis la nga ànd ak góor mu ne ah kon du mi ndeke dafa am jëkkër am far. parce que yow yaa ko waxul ne ko tas naa pour moom mu bañ a am bàkkaar sa diggante digganteeg moom. kon nag. siwal bi c'est très normal doomu aadama yi xam ne 2000 ka dafa nekkoon ci moom waaye nekkatu ci waaye tas moom congaan maay hmm. wax yow kenn bëggu ko ku sañoon doo ànd ak ni doo tàqali ko moom célébrité bu tas ay avantage la gën a bari wala yan inconvénient nga jàpp ni moom la gën a àndal hmm, amul avantage amul inconvénient hmm. inconvénient bi ci am rek mooy peut-être doomu aadama yi nga xam dañ ci wax te xamuñu waaye man de lépp lu ma waay waxal te xamoo sama jëmm ji. Hmm. wala gësoo ma pour xam ma mu nekk leen loo wax te xamoo ko ci man bàyyi naa la ak yàlla yàlla nañu yàlla àtte. Hmm. ndax nit bala nga koo wax dara da nga koy xam. ma nit ñi dañuy wax te xamuñu inconvénient bi rek loolu la parce que ñu bari dañuy ragal. Hmm. tas rek sénégalais bi commencé du du sëykat xamoon nañu du fa toog mais nit ki la koy màtt ca biir lalam boobu. ba tax mu jël décision jóge ca sëy ba. xamoo ko. d'accord te du yomb nga xam ko ndax am na ñoo xamante ni duñu wax sama classe bi. man je parle pas. d'accord waaw. très bien soxna am yi nga defoon mariage boo xam ni tarkal la Sénégal yëpp ak rédaction seen buzz xam nga ne wane woon na ko ñu baree bari ci askan wi tamit wax dëgg yàlla dundandóoroon ko ak yow tellement que mariage bu neexoon la suñu ay naataangoo xëy bind ni do gannaaw 3 mois de mariage soxna ami Mbaye alias Ami Collé bu doomu gaynde tas na xibaar boobu ndax da nga koy dëggal déjà pour commencer là je suis célibataire suñu borom dogal na ni sa ak ku baax. sëy bu mujj bii bu bu mag bi bi nga xam ne mariage bi. neexoon na waaw bu mujj bii nii te internet àdduna bi ba bépp ñëw site yëpp ñëw. ok sëy ba taas na noonu la ko suñu borom bi na ah franchement. Hmm. du la ma gënal. wax dëgg yàlla yàlla moom ma tiim. Hmm. te it am na ñu naan sëy bi 3 mois la am dañoo juum sëy bi dafa 3 mois. divorce bi am na tamit lu yàgg ma toog ne pat si sama ko mooy waxuma parce que li ma doon bañ rek mooy am riir. Hmm. te riir boobu xamoon naa dafay am. parce que ñun suñu tas du du du ñàkk siiw ndax déjà sa entourage kii de ko yëg kii yëg ko kii yëg ko kii yëg ko mais man avant sama tas di dem ci benn internet samay kilifa yëg nañ ko parce que man dama am ay kilifa bañ ko yëgee tamit xam nañu mhm. ni ah tas am na sama jëkkër ji ma tàqalikool na nekk ko baax yàllaa ma tiim mhm. ili mbay dogo laa tàqalikool dogo faalik maa wa joor ko mba sàmba yaay joloo dogo mi ci mbir ko mhm. borom fooraay mu nekk góor gu baax mais gars yi commentaire dañ naan nga am jigéen góor gu baax toog di ko seedeel te nangoo toog ci sëy bi sëy tamit waaw mais attends góor gu baax nga jigéen ju baax la am maa ngi nii kenn damaa gën ci fi réew mi tool hmm. doomu aadama gënuma sëykat international la barke Cheikhul Khadim yàlla ma tim tagguma sama bopp de waaye sëykat pire ngi nii toog te ñi ma xam xam nañ loolu ci man hmm. dafa fekk nag ni sëy ak tas ñoo ànd te léegi léeg li ma la wax moo ci nekk rek hmm. am sensu jëkkër day am macha allah am wërsëg am wërsëgu jëkkër tant tant mieux pour moi day am. Mm. mais am sansu jëkkër léeg-léeg mooy mooy jafe. mais jigéen ju baax ko mën a sëy mi ngi nii toog. tàgguma sama bopp de. Mm. jamono toll foo xamante ni li baax ci yow bul xaar nit ñi la ko dee ko waxal sa bopp. Mm. te naa ne bonuma macha allah waaye moom tamit kenn du moom man yàlla nattuwuma boolewuma ak góor gu bon. man góor ñi man jot a ñëpp macha allah je touche du bois ay nit ñu baax lañu ba ci papa yi Muhammad kenn gënu ko. Mm-hmm. mooy mm. wàlli yaasin ma ca Congo mm. mii yàlla suñu borom boolewu maag ku bon papay Mouhamed Anta Mali Gana Paal la ku baax mm. ba ma sëyee sama sëy bii weesu nii ma jóge ci nii yaayam bi ko sukku jur mère Ngom ma di ko nuyu de passage daf ma ne kolle ma ni ko naa mu ne ma damaa bëggoon sa xew moomu ma teewe jax ba mën a wax sa jëkkër jii nga àndal tey yaay kan mais mun na ma mais dommage que defuma ko su ma fa defoon wala ma wax fa lenn lu bon kon samay goroog samay njëkkee duñ ma duñ ma topp ba jusqu'à présent di ma waxal lu baax d'accord macha allah yàlla boolewu ma ko bon d'accord alors mais divorce yu gaaw yi nga xam ne aussi moom lañ leen di gën di faral quand di accuser lan nga jàpp ni quand même moo koy justifier divorce bu gaaw bi du dara li ma la wax ne moo ci nekk congaan sëy hmm. ak sëy sëy sëy ak tas ñoo ànd ndax tas la suñu borom njëkk bind avancé hmm. bien vrai que ne yàlla euh, euh, euh, sib na ko ndax bëgg ko hmm. ba sañoon du am mais parfois te day nekk loo xam ne mënta ñàkk te lu mënta ñàkk faaw mu am ci jaam bi. te loo gis ci àdduna àpp la am. loo gis ci àdduna àpp la am. Hmm. lu sa àpp jot rek mu jeex. ku sañoon benn jëkkër ngay am durant toute ta vie. Hmm. doo xam ma sàmba xam ma démba xam ma paate. Hmm. ndax yàlla sa daf ñëw cëraleewul ñu jigéen ñu xam fii xam fii xam fii xam fii. mais yàlla mooy def ni keroog ba ngay juddoo ni cëpp sa biiru ndey dañ naan ko bëgg. képp ku tàllal loxoom da ciy bokk man na kii ñëwaat yal na nekk ki mujjee tàllal loxoom. <laughs> d'accord très ay yow mii ñëwaat mujjee tàllal sa loxo ah, sonn naa de. très bien damaa bëgg a sëy ranger. nit xam nga sëy au fait dafay ranger lu jigéen day tax nga nga nga nga ranger sëy dafa baax. sëy <laughs> kiiraange la ci jigéen. Mm. te fii jamono toll nii. Euh, ñun jigéen ñi képp ku ne bëgguma sëy waxoo dëgg da ngay gis nit ne la barki dem boo jaay nga jóge ci sëy lu tax nga bëgg a relancer waat ci sëy a nekk wax ni da ngeen di dugg ci sëy ma da ngeen a vie boo xam ne vraiment daanaka leen di xatal rek bëggu leen ko da ngeen di def juste exprès pour dugg ci ah, moo ñuy xatal est xam nga ne congaan ñun ñun sëy moo ñu arrangé hmm. ñun ñàkk sëy arrangé wuñu parce que ku mel ni man ak samay ak samay nit yi ma yàlla boole amuñu jëmukaay ñun di nga gis koo xam day xëy soo ba ngoon jot bu liggéey mi ngi biir këram toog man dama part sama aw ma jëmukaay man sama jëmukaay fenn la su ma demul sama kër xarit bi nga xam ne ñoo den tullaay dew ma kër Ndoumbé Ndiaye. Mhm. dew ma kër Marème si Marème si sax rarement laa fay dem dafa sori. amuñu jëm dégg nga ne naa ko dafa sori dina ma rey amuñu jëmukaay. moom Marème si moom dina xëy soo ba nga jot du génn biir këram. Ndoumbé mm. Ndiaye day xëy soo ba nga jot du génn biir këram. Tulaay dina xëy soo ba nga jot du génn biir këram. maanaam amuñu fréquentation amuñu jëmukaay boo xamante ne nii. Mm. te nit ku nekk bëgg nga wéetal ci àdduna. bu ñu tàkk jabar pour mm. ba a wéet a tax. ragal wéet bu ñuy sëy <laughs> ragal wéet a tax ñuy sëy kon nit ku nekk bëgg nga ko ku la wéttali et mm-hmm. alors euh, dañuy ñaan yàlla suñu borom mi dara teewul kii ñëwaat ci ñun suñu mm-hmm. borom def mu doon ki gën ci ñun ndax jàmm bi lépp loo ñaan na fekk mu gën ci yow sëy weesu dafa gën rek waaye boo waree dakk day dakk d'accord soxna Ami ndax gisoo ni tamit ñuy faral di limal nit ay sëy yu bareeg loolu amul lu mën a déstabiliser d'autant plus que nga nekk jigéen bu siiw lu mën a yàq ci sa image bu mën a yàqul dara ci image yu jigéen mm. lan la ci ak société bi nga xam ne daanaka boo tasee benn yoon sax ñu ne dafa ay gaaf ak yu noonu xam nga ni Sénégal noonu lay demee pourquoi pas yéen célébrité yi nag aussi defu leen ko problème ils ont rien jigéen buy sëy di tas ayul gaaf ku hmm. ay gaaf du sëy di tas sëy tas hmm. bokkul dara ak ay gaaf sëy tas bokkul dara ak ñu nekk diw mi de dafa ay gaaf sëy tas yàlla moo koy bind ci jëwu doomu aadama bi hmm. donc mënoo koo daw te célébrité la ñu xam parce que ñoom ñoo siiw mais ñi fiy sëy di tas te duñu ay célébrité moo ëpp fuuf lim bi kenn mënu xam nu mu toll. Mm. mais nag comme célébrité yi moom nee naa ku dee ca marché ba yaa tàggee sa bopp alors moo tax suñu bos di siiw mais ñi fi nekk di sëy di tas te siiw ñu moo ëpp fuuf ñu fiy sëy di tas. Mm. ndax bés bu yàlla sàkk nga dégg teg cent person yoo xam ne seen sëy tas na. bu subaa dañuy ñaan yàlla duggaat ci sëy parce que suñu wax dëgg yàlla amul dara lu mën a déstabiliser déstabiliser ci nit mm-hmm. mais ku sañoon tamit nga toog sëy d'accord parce que sëy dafa baax jaamu yàlla la. très bien am ñenn ci askan wi ñoo xam ni xëy na am nañu ay commentaires yoo xam ne dañu koy faral di yëkkati mu nekk ay gis-gis yoo xam ne vraiment yu négatif lay faral di nekk di ko yëkkati di ko jëmale ci yéen rawatina ki nga xam mooy soxna Ami bi nga xam ne nañu divorce jugement yu négatif yu ñaaw yi nga xam aussi ñeneen ñu ngi koy def noo koy dundee. nit ki ki lay ki lay ki dalaa xamul rek ma yaa leen gën ma ne ko lu tax mu ne ma ndax yow amoo seen jot pour war leen lijjanti yow yaa ngi xënte pour loo am pour dimbali sa bopp dimbali sa njaboot ñooñu benn 200 francs connexion wala 500 francs connexion la ñuy am di commentaire pour déstabiliser doomu aadama bi te fekk ne ka nga déstabiliser moo la gën boo moytul moo gën sa ndey boo moytul moo gën sa bàyyi te la nga koy commentaire al xamoo ko mm. te yaa ngi koy bàkkaaral sa diggante ak moom parce que man tey ki commenté commentaire bu négatif ci man mm. taxamuma mm. wala mu toog di wax ci man taxamuma mm. mi ngi bàkkaar bàkkaar boo xam ne xamu ko parce que man ma yàlla mukk dee dem àllaaxiraa gi tudd sama bàmmeel boobu di xaar nit koo xam ne tey man maa waxoon ci moom lu ñaaw di ko fa xaar te yàlla lépp lu wax ci alxuraan dafa am diggante yàlla ak nit kooku yàlla mën na koo jéggale mais diggante nit ak nit nit ki moo la mën a jéggal kon ki ngay commentaire di wax ci moom lu bon te xamoo ko. Mm. bés bu la jiitoo ci suuf. wala yow nga jiitu ko ci suuf di nga mm. toog xaar ko fa ba mu ñëw. Mm. ba keroog layoo. nga taxaw ni ko jéggal ma pour mën laa soog a jéggal ngay soog a oyof lu ko fi jar. ana ne pat nit ko boo ko xamalul bon bu ko wax ci moom. nit ko boo ko xamalul ñaaw noo wax sa xalaat bañuñu ko. xam nga tey euh, ñun ay nit kese lañu. yàlla moo ñu sàkk def ñu ay nit dong nag. weesuñu nit. sëgam gën ngi mbindeef Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy suñu royukaay moom la suñu borom bi indi teg ko ci àdduna ay ay ay ay ay noonam tol nii lu ma mënta wax mhm. masamaa ñun ñi nga xam ne ay nit simple lañu ñu bind ñu ci leeru Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. kon mënuñu bañ nit wax mais kiy wax aussi mu dem bay wax li muy wax na ko xam mais majeure partie bi wax yëpp li ñuy wax xamuñu ci daara mhm. mais mënuñu ko bañ ah, parce que ñoo nekk ci milieu bi mais wax nañu xoolaat li ñuy wax xam ne ñun dañu am ay doom mm-hmm. dañu am famille dañu am ay jarbaat dañu mm-hmm. am ay soppe tey suñuy doom yi nga xam ne juruñu leen sax moo ëpp doom yi nga xam ne ñoom la ñu jur dañu am ay nit ñoo xam ne tey bu ñu sañoon mm. du ñu dégg ci ñu lu toll na tarafatal ay ni mm. moo tax ñuy moytu moo tax ñuy def yenn yi moo tax ñuy def yenn yi juste pour garder suñu image mu naan mariage bu la ëpp yi bu la ëpp xaalis xëy na gën a bari coow yooyu mooy gën a gàtt ndax it aussi jàppoo ne souvent a nekk ne aussi moom ngeen di faral di dund ñu xam nga xaalis moo yàq réew mi rek mm. xaalis a yàq réew mi waaye ku sañoon bu la takkee ñëpp yëg ko te takk sax dañ ne dañ koy siiwal takk hmm. yàlla moo njëkk a digle nañ ko siiwal ngir goo ñi tegoon seen bët ndaw si ñëpp wàcc ko xam ne kii kat mu ngi ci farta yàlla sunu su Muhammad hmm. mais xaalis moo yàq réew mi ba nga xamante ne ni lu ànd ak xaalis rek siiw loolu la xaalis moo yàq réew mi mais du du question que diw dañ ko may lii diw dañ ko may lii diw dañ ko may laa jigéen lu ñu ko may ci àdduna jomb ko mais c'est trop parfois yenn yi aussi hmm. ñu ci bàyyi xel que ni euh, am na loo xamante ne nii bul bañ journaliste yi bind ko waaye bu mu jógee yow ci sa làmmiñ ok très bien soxna Ami Mbaye alias Ami Collé bu doomu gaynde fi may nit nitu diine yi dañuy faral di wax ni fu divorce am rek ku góor ki wala ku jigéen ki am na ci koo xam ni moo ci ëpp part de responsabilité ci yéen célébrité yi ñan nga jàpp ni vraiment ñooy ëpp responsabilité ci seen divorce yi ñu ci bari aussi yéen lañ jàpp ni yéen yéen yéen a du yéen daal xëy na yéen la ñuy jàmm baaraamu tuuma waaw ñuy tax tax ñoo ñuy jàmm baaraamu tuuma mooy dañoo doon jigéen hmm. xam nga boo doonee jigéen dañ laa ñaan si ñaani li taxit parfois yenn responsabilité di gën a tuuru ci ñun mooy jigéen lañu rek jigéen nag boo ko doonee te doon jigéen jigéen kese kese kese kese kese mm-hmm. suñu borom bi def ne dañ lay ñaan si ñaani woo parfois buy metti di am sax ci yow lay gën a metti mm-hmm. ndax tey yow mënoo dem ci kër ñaani góor góor mooy dugg ci kër ñaan si la mm-hmm. moom ko góor ki il n'a rien na perdre parce que moom bu subaak jàmm bu ko neexee dem fëgg beneen bunt dañ koy ubbil nànk mu ñëw wut fa soxnaam ko neex denc kon coono bi ak métit bi ci ñun la gën a am mais dañ koy sante suñu borom. Mm. ndax jàmm bi lépp lu yàlla def ci yow rek ngëneel la. Mm. man de lu yàlla def ci man rek jàpp naa ne ngëneel la. ndax suñu borom du juum ci jëm ci ci ci doomu aadama. d'accord yàlla du juum yàlla lu mu def dafa gën. très fi may jeexalee ñiy wax naan yéen a sikk rek ndax góor ñëpp mënuñoo bonandoor mënoo amandoor ñetti góor ñëpp bonandoor aussi ñëpp amandoor même défaut <laughs> loolu aussi lan nga ñu ciy leeralal. waaw bu ñu jàppee ni ñoo sikk nañu tuubal baaraam rek nañoo sikk waaye ñi ñuy sëy xam nañu sikkuñu. ndax xam nga sëy nag li ma la moo ci nekk. Hmm. pancré bu tëju la tànk ubbi woo ko xam li hmm. moom xam na raison bi tax seen sëy tas. tey mënoo fee toog naan diw mi lee tax ñu tas diw mi lee tax ñu tas diw mi lee tax ñu tas diw mi tax ñu tas mun nekk hmm. looy denc la tu le gardes pour toi wala nga garder ko pour sa mbokk yi nga xam ñoom ñoo sës ci yow mais du lay toog di ko wax ci internet naan diw de sama divorce ak moom lii ko waral mënul nekk ndax yàlla moo ne nañ sàngante sutura te sutura c'est très important kon amuñu pour nekk naan diw de lee tax ñu tas diw lee tax ñu tas ànd la woon rek. tàqalikoo am na jeex na. surtout tàqalikoo am na jeex na fi may jeexalee nan nga koy dundee média yi wala ñenn ci réseaux sociaux yeeg yenn site internet yi aussi di ko faral di wax nga nekk jigéen aussi quand même am benn responsabilité boo xam ne am nga ay rakk ak ay doom ak yu deme noonu. bon pourquoi déranger wu ma parce que man sama waa kër xam nañ ma man sama waa kër dañ ma xam man sama doom bi gën a ndaw sax daf ma xam parce que man damay communiquer man sama doom bi ci gën a ndaw di Mouhamed sax. Mm-hmm. damay communiquer ak moom. amul lu may décider. Mm-hmm. wala lu may def te woowuma leen ne leen kaa leen ngeen toog. damay def lii damaa bëgg def lii damaa bëgg def laa parce que ñoom seen conseil sax xeebuma ko. parce que samay doom lañu ñu ah. maa leen jur macha allah. Mm-hmm. sama rak ji nga xam ni euh, muy euh, ami collège Diallo amul lu ñu lu may def lu mu yëgul. sama rakk ji gën a ndaw sama yaay bàyyi ko fi di BMAS pareil sama doom Alida noonu donc man aw problème mu problème euh, euh, li société bi wax ak li ma Samba wax ak li ma Demba wax parce que avant kenn du jot benn information ñoom jot nañ ko déjà ba pare su ma demoon léegi léegi léegi léegi ni film boo xamante ne dama ci def naka hmm. ma yegg si kaay leen toog ñoom ma leen ah hmm, ma am naa lu ma joué de ñu ne ko loo def man leen def naa lii def naa lii def naa lii def hmm. naa laa communication nga xam ne moom la suñu borom def ni am kook ñoom tax na mën a wax bala ñoom bu yegsi ci ñoom sax day fekk boobu man yegg naa ko ci ñoom ba bu ñëwee bu doon diis sax day oyof parce que allah nag euh, avant tout mm. mooy sax njaboot gi nga xam ñoom la yàlla booleel ba pare très faral di wax ni dafa mel ni aussi da di influencer xale yi wala ñu bari ci jigéen ñi aussi ci banaliser li nga xam ne mooy divorce aussi non influencé wuñu kenn xam nga tax mm. influencé wuñu kenn mm. parce que tout le monde est libre man Ami Collé Mbaye ma doon sa fan sa nga may seetaan di ma suivre tax ma dugg ci say génn tey duggaat ci suba génn duggaat ci ginnaaw suba génn watta a tax yow nga am lancé wu ni fii kii jaar fa jaar hmm. parce que nit ku nekk ak sa destin te tey man su may conseil ni koy conseil à ce que na toog sëy parce que c'est c'est très important. waaw duñu ni mu ngi digle sangaay te sanguwul comme ni ñu koy faral di waxee dañuy toog naan la del sëy te ñoom sëy ñu aussi souvent aussi dañuy faral di yëkkati. critique yooyu waaw mais xam nga xam nga sëy yëfu nit la. waaye am xel doomu aadama ko yor. Mhm. du dëgg. absolument tey sama ñàkk euh, sëy du tee ma jox conseil ñi nga xam ne ñoo ne ci bu mu sëy ne leen sëy leen ñi sëyagul ma ne leen sëy leen. Mhm. parce que sëy suñu borom du ko digle. am xel rek mhm. ngay waxee ak ñoom. ñàkk sëy <laughs> du tax nga joxe conseil kuy sëy parce que tey léeg nga gis koo xam ne mi ngi ci biir néegu sëyam di sëy. mënul jox conseil ki sëy. nga gis koo xam ne sëyul. la mu am expérience bi mu am kenn ca ni biir néegu say ba amu ko. kon loolu affaire expérience rek ça n'a rien à voir ak yow mi nga xam tey sa yow ba tax amoo sañ-sañu jàkkaarloo ki ko sayal. très bien. du ñu ngi doon bu baax baax ci difficulté ak coono beeg vraiment li nga xamee ni dundaloo nañ la ko ngir am jotaay bi soxna am amul problème ñoo far loolu du dara euh, moom métier bi ñoo ànd waaye damay nuyu Mansour Mbaye ma jaaga hmm. ndax yàlla dafa dogal ne damaa jër cër bu foor jox ko ko Père Zora Père Zora hmm. euh, bien vrai que sam papa Euh, dafa jëloon sama cër jox ko Pa As Socé ma di ko nuyu de passage Pa sama xaritu papa la depuis mu nekkee xale tey sama papa joxoon ma cëru bàyyi ci moom ma sëy mu maye ma sëyaat mu maye après sëy ñëwaat ma ne sama cër jox naa ko jox naa ko jox naa ko baas. jox naa ko baas kon jot ngaa changé jot ngaa changé baay bi noonu. non non changé ma baay sax mais moom xam na ne sama en dehors de lépp sama papa la. moom sama papa la. mais nit léeg-léeg di ngeen di ngeen am benn jaar-jaar ci àdduna boo xam ne boo sañoon benn cër bu ndaw dina ko am ci yow. mooy sama digganteeg Mansour Mbaye Madiaga. Hmm. am na ñoo xam ne sama relation ak ñoom moo jiitu mais tey moom bi mu ñëwee dafa dominer lépp ndax nee naa ki la xamante ni loo nekk mu nekk ca. Hmm. loo def mi ngi lay surveiller di la xool de près et de loin Collé bul def lii tegal fi sa tànk tegal lii fa sa tànk te ba ma ko joxee sama cër cofu ko da koo da da da koo jël aj ko ci kaw ndax mbooloo moom fi indi ànd seeg sëñ sëñ Mansour Diouf ma di ko nuyu bu baax a baax a baax a baax kenn mm. xamul mbooloo moom nu mu toll mm. ànd ak ay kilifa ànd ak ñëpp may nuyu nag fa may liggéeyee di waa TFM mm. ndax euh, mënu ma toog te nuyu ma leen di nuyu sama DG Ndiaga di nuyu DG bu mag bi Youssou Ndour di nuyu Bouba Ndour di nuyu famille Ndour ñëpp macha allah di wax ne ñun fa ñuy liggéeyee du ñu ay employé ñun famille lañu te loolu leen ñëpp di wut nit ku nekk ñaan nga yàlla fi ngay liggéeyee mu doon famille ci yow macha allah amuñu fa benn jafe-jafe suñu borom mu ngi suturaal. ba ñu yàlla booleek hmm. ñooñu. di wax alhamdulilah rabil alamin di wax jërëjëf sëriñ Touba. doon am mbégte ci am ak moom jotaay di ko jaajëfal di leen jaajëfal bu baax a baax ci àndin beeg wettali gu geeg Senbuzz TV rendez-vous très prochainement sur la chaîne des leaders ak beneen invité fi amaanillah